nijaay moo demoon Canada. waaw bi mu demee Canada mu def foofu deux ans trois ans. mu ñëw ñibbisi ci kër gi yóbbu yaayam màq. bi mu yóbboo yaayam màq. ñu retourné waat ñu teg ci ay fan yu gaat sama nijaay daal di dellu bi mu delloo jabaram bi doon waxtaan téléphone ba message yi dal si waat suñu téléphone bi message yi dal si suñu téléphone ndax bi message lan message bi dafa ni diw yóbbu na yaayam màq comme yóbbu na yaayam màq te beneen kër ga moo yoroon Pikine ñu njëkkoon fa dëkk nee da koy may yaayam man nag dinaa def tuuba du ko may yaayam ndax bu ko mayee yaayam ay jigéenam fa la ñuy fréquent léegi ñun bi ñu déggee wax boobu sama yaay daal di dem mu demee mu asale sama yaay indi ko istuwaar sama yaay daal di ñëwaat toog mooy sama jabaru nijaay sama umpaañ mm. léegi sama yaay ñëwaatee toog ñu teg ci ay fan yu gàtt sama sama sama nijaay boobu dafa amoon ñaari kër kër yi mi ngi nekkoon jaxaay ci kër yi nangu woon léegi ñoom ñu jël kër yi jaay ko ba pare biñ jaayee kër yi ba signé jabaram bi signé ba jël xaalis bi ñun yëguñu xamuñu kër yi ni mu demee yow sa jabaru nijaay moom moo jaay kër moom moo jëkkëram ñoo jaay kër yi ñun yëguñu ko ñun dañoo toog am na ci droit ndax lu ci nekk rek droit la moo ko moom mm-hmm. sama nijaay moom moom kër yi mm-hmm. bi mu jaayee kër yi ba histoire bi dem jabar ji am problème ñu daal koy jàpp waaw ñim jaayan kër yi ñooñu dañoo nanguwaat kër yi ñoom dañoo jël seen xaalis fekk xaalis bi lekk nañ ko maanaam kër gi dafa am biñ ko jaay dafa dafa am lu ci lënt waaw kër gi biñ ko jaay dafa am ay lënt lënt ci biir mhm. léegi ñun tamit ñu dégg ni jabar ji am na problème ñu daal di dem fekk ji leen police mbokk jabar yi commencé di ñu harcelé ñu daan ñu nit mënuñoo toog ndax suñuy doomu nijaay seen yaay bu amee problème war nañoo dem suñu yaay di jaabante bi ñuy jaabante ba ci biir ñoom tamit ñu retourné waat wax ci xaw a ñagasante ñu ñu daal di toogaat ci suñu kër bi ñu ñu toog ci ci giir bu gàtt sama nijaay daal di woote ne na yaayam génn këram yaayam bi ko jur bi ko jur nee na génn këram sa nijaay moo woote ne ya na yaayam na génn këram yaayam tamit moom it mu ni du génn tànk doomam ñëwut sama nijaay def Canada ñetti at sama maam déggul sama nijaay ñu ne dégguñu ko xamuñ ci lu nekk ñun tamit dematuñ këram mhm. ku ci nekk yaa ngi ci sa kër toog léegi ñuy dem ba diir bu gàtt barki démb vendredi la sama nijaay jógee Canada samedi mu noppalu këram démb di bés di dimanche mu ñëw ci biir kër gi mu ni yaayam génnal mu ni salaamaaleykum ana ndaw si nekk fii ana ndaw si nekk fii ana ndaw si nekk fii du yaayam mooy ndaw yaayam mooy ndaw si ñu ni waaw rakkam bu jigéen ni ko koo wax mu ne jigéen ji dëkkoon fii na génn sama kër ci biti ñun nag moo ko jur moo ko jur ci biiram mooy taawam bu góor am na juróomi kër benn kër mu ni kër gi nga xam ne moo des sëñ bi mën naa laa woon photo kër gi photo kër gi mi ngi nii kër gi boo ko laalee mu daan mu ne na yaayam génn ci kër gii mu nekk boole ci nag ñun sëñ bi li ñu yokk indi fii ci rajo bi man li ma yokk indi fii ci rajo bi mooy sama nijaay changé na yor na jikko bu mu yoru taxawaay na taxawaay fi nga xam ne mosu faa taxawee ak yaayam ñoo ngi ñaan nag képp ku déggu message bii su fekkee pexe jigéen la yàlla na suñu borom wëlbatiwaat xelam mu delluwaat ci yaayam ndax yaayam affaire bi da koo jàpp depuis deux ans mi ngi nii xamul lu muy def xamul lu muy def dafa xaw a ànd feebaru xel xel mi neexatul yaayam parce que démb moom jàkkaarloo na ak doomam doomam naan ko génnal kër gi bi doom ji demee ñu ni ko yow kii lu mu doon wax mu ni kii xawuma ko dafay ñëw la dañ ko fee yónni ñu ni ko kii mooy sa doom bi mu ni kii du sama doom man xàmmee naa sama doom yaayam bi ko jur xel bi dem na mu ni na yaayam génn kër gi mu wax na yaayam génn kër gi moom moo ko moom yaayam da doon jënd ji Tiwaawoon pël kër mu ni yaayam jox ma li nga yor ma def ko ci kër gi bi ngaa gaañoo léegi yàgg na moom ak yaayam ñuy souffrance di ànd muy daanu ko di jug ko jug di daanu di jug ko jug bay maamam bi jur yaayam sacrifice boppam ba mu yóbbu ko mu tukki léegi yéen ci ban kër ngeen nekk kër googu. samay maam moo fa nekkoon ak doomam bu jigéen boo xam ne jëkkëram dafa gaañu ak ay doomam. mais kër googu seen nijaay ko moom. kër googu sunu nijaay moo ko moom. léegi moom na yaayam génn. mu ne na yaayam génn. li tax ma ñëw ci rojo bi. yaayam ñi ngi takk bagages yi nii señ bi di génn. yéen yéen a koy takk pour génnee ko. pour génnee yaayam xelam ñëwul bu baax ci ci moom moom dañ ko yóbbu sax démb rawale ko yóbbu ko sama kër yaay teg ko fa. mais est-ce que nekkul tamit dafa wax na nag génn mais est daf ko daf ko maanaam daf ko brutaliser jàpp ko jatañ ko ne ko da ngay génn par force. dafa ba tey du def benn geste ci digganteem ak yaayam mais dafay wax. tey jii ni ma jógee daw ci kër gi. naqar moo ma indi fii. parce que dafa def geste boo xam da lay leer ni kii àndut ak sagoom deful geste nit mi ngi nekk ci kër ga naan sama jabar yéen a ko def naa nga sama jabar yéen a demoon boole ji ko ba plus jël ko sama jabar da koo bañ kon na génn yéen sama yaay ci biti donc yow da jàpp ne Tande li muy def du tayef sëñ bi sama nijaay li muy def tayu ko man xam naa ko maa gën a tuuti ci li ñëw ñëpp dañoo ànd ak naqar toog nga dem ba dëkk feneen ca àll ba jël sa ñetti doom yóbbu leen Canada kër gi nga xam ni bu nawet jotee day taa ba sa yaay day jël lalam ko dëstanal sa na génn foofu foofu sago nekk naka la mën a nekkee Canada tamit di bàyyi situation kër gi mel taa yaayam amul fu mu tëdd situation boobu nag sëñ bi hmm. liñ la mën a wax ci gàttal hmm. ñetti at a ngi ne xamul ci lu yaayam nekk yaayam xamul ci lu mu nekk ñetti at def na Canada juróomi at musta mel noonu Zahra daana nemmeeku yaay. bi mu doon moo yaayam a dëkkoon ci benn kër. di bi mu tabaxee këram dafa jëloon yaayam yóbbu ko fa. ndaw si commencé di def geste ba yaayam ñi biswaat ci kër gu njëkk. kon da ngeen a jàpp ne. jabar ji moo nekk ci digg bi. jabar nekk ci digg bi. xaw ma nekkul ci waaye képp ku ko dégg. ñu ngi lay ciy ñaan wallu suñu nijaay bi delluwaat ak xelam. ndax àndut ak xelam. àndut ak xelam. parce que kuy génnee sa yaay naan ndaw si. waaw ndaw si dëkkoon. ndaw si dëkkoon ci biir néeg bi na ma génn àll sama néeg. sa bopp loolu de ku ànd ak sa sa bopp mais sa nijaay tux cigarette. du tux day naan sàngara. du naan sàngara. day dorogew. du dorogew bu tedd lañ ko tuddee. ba muy toog di nekk moom kase moom kase musta nangu siggi xool rakk mbaamu xool yaayam moom wax na loolu ba demaat dem na bi mu demee bi mu waxee loolu démb ba demaat mu ñëwaat tey jii dafa ñëwaat nii may waxee yow maa ko bàyyi biir koñ ba muy jàppante dem di ñëw di xataraayu jigéen ñi pour di dóor pour bëgg leen a dóor waa koñ baa leen a jàpp ni fi mu toll nii yow man ma daw ñëw si fii ndax li tax ma ñëw fii man damaa xam sama nijaay xamoon ko démb xamoon ko barki démb tey mu soppeeku waat mel nii ndax ko dem bay topp sa ndey ji la jur di da ko toroxal ci digg mbedd ma ànd toog sa bu sax yaay la ndax moom nga bëggoon koo xamante ne amaana am nañu xam-xam ñu mën a ñaan waaw ko mën a ñaan ñoo ngi sàkku te yàlla tax su dee def-def la yàlla nga ñu ko dindil bu dee du def-def yàlla na àndaat ak sagoom ñoo ngi ñaan képp ku déglu wax bi tudduma turu jabaram ndax yàlla moo xam waaye daal sama nijaay changé na changé na changé na ndax boo tukkee ay at sa yaay topp nga dem ba sa yaay xàmmeew la sa yaay dem ba tàqalikook sagoom nga ñëw ni na sa yaay génnaat ca kër gay taata yow yaa nga yot sa étage dëkk fa ak say sa jabar jël say jabari doom yóbbu foofu pour man boo fa defee leneen lu mooy yaay jërëjëf foofu àndatoog sa sagoom léegi moom yaayam lan moo tàqali sagoom sama maam dafa bëggoon doom ji dafa bëggoon doom ji dafa yéex am doom bu góor bi mu amee doom mu jël doom ji taf ci xol bi bëgg doom ji saf itam ngi tëf tëfe bàyyi leen ko mu toog yàlla dina delloosiwaat déggul doom ji boo ñëwee maam dégg nga diw mu ne ah dégguma ko de léegi boo demee démb ñuy wax yëpp nee na man loolu leen wax man li ngeen wax xaw ma ci dara dina ñibbisi bu ñibbisee dina ñëw nuyu si ma te moom mi ngi jàkkaarloog doomam sëñ bi donc daal da nga ne peut-être mën na ne naqaru xol moo tax mu naqaru xol moo yóbbu xelam loolu kuy mboqam ñu ngi koy faj kuy mboqam boo kii ni meloon démb xoolaat ko tey xam ne naqaru xoloo ko jàpp ndax doom dafa sax ci xol du sol solinu dof du génn ci mbedd mi mais ci biir kër gi munoo ko wax munoo ko wax lenn ba mu xam ko. est-ce que tamit naaxut. naaxut. sama maam bu amee juróom benn fukki at ci la yem. donc waru fee mën fee mën a naax ndax yaayam bi ko jur bi jur sama maam bii moom moo yoroon sama nijaay bi ak sama maam yaayam bi ko jur mi ngi fi moom waa ji dafa vasé wu ni bu bu du teg maamam boobu bët bu mu dajeeg moom ci mbedd. sama kàddu gu mujj. sama kàddu gu mooy ñëwuñu fi pour sàqu ndimbal pour dimbali sama maam ndax jigéen baax na góor baax na dinañ téye sama maam waaye ñoo ngi ñaan képp kuy kilifa diine nga dégg suñu wax bi yàlla nga nu wëlbatiku waatal boole ñu suñu famille ba mu organisé waat ba sama nijaay bi dellusiwaat ci loxoy yaayam